ferme bi bi ñu defee évaluation tool yi ci renseignement yi moom ceux à qui on a pris plus de vingt pour cent de leur terre dañ leen a octroyé des parcelles de vingt cinq sur vingt cinq bon dañu ko xoole nag euh, ceux-là font euh, un nombre de quatorze quatorze personnes quatorze personnes bon kenn ku ci ne di nga am vingt cinq sur vingt cinq plus deux personnes yu nga xamante ni kenn ku ci ne di nga am deux parcelles parce que ñooñu ils sont super euh, impact n'est-ce pas bon li ñu dàmp nag moom du ko mos a jar waaye nag ce que je peux dire mooy ils ont dépassé le barème national donc ku dépassé barème national nag mënoo ko ni euh, dégg ko waaye bu fekkonte ni nag du woon loi domaine national ah bu boobaa woon kon dinañ laaj lépp loolu mais nag comme lii nation bi tëral dépassé nañ ko vraiment on ne peut que se réjouir waaw waaw mango gu nekk cent dix huit huit cent soixante dix lañ ko fay lañ ko fay kenn ku ci nekk mango gu ko xamante ni egg na ci meññ waaw. Euh, suuf si ñu fay ci trois cent francs mètre carré au lieu de cent cinq francs barème national garab yu ndaw ndawaan yi nag comme da kàdd kàdd c'est douze mille francs ay dugóor ay yenn ay mille francs ay am na daal ay arbustes les les arbres forestiers noonu lañ ko fay tool bi tool bi moom ndàmpaay la dañ fi fas yéene bay ñoom ñu assuré lu ndox mu doy kenn ku nekk mën a bay euh, loo ci récolté yaa ko moom sa tool tim yaa ko moom wax nañ ni duñ la wax nii ngay bayee wala lii ngay bay mais seulement dinañ la encadrer n'est-ce pas comme dina agar nag jox la ndox mu doy fu sa mbagg toll rek xëy na koofu la sa rendement di toll parce que tool yi tuuti na tuutikul waaw léegi nag li ñuy ñaan ñun mooy suñu opération bu jàllee ba mu wér nii réussir na ñu gën ñoo jàppale waxuma projet bi donc mais ñu gën ñoo jàppale auprès des bailleurs ñu gën a démultiplier ces genres de